trois cent nangam message moo ñëw sama téléphone bi directement le temps que may sangu pour ñëw toog moo tax ma fay téléphone bi dama koo fay yow amina poté partagé leen vidéo yi gars yi yow amina poté man asam diouf xanaa xamoo ne ki la loon tëddee ki la doon tëdde bi nga nekkee Atlanta di la yóbbu ngay dem shopping di la yóbbu Old National di la yóbbu ci kër góor ñeeg kër jigéen ñi ngay màjjaal ka wanewu accidenté defe ne fi ngay jaare nekk milliardaire bu mu tax la ngay telli telli di ñëw Amérique dem ak New York kër ga nga nekkoon ñu la fay tëdde guddeeg bëccëg kooku bi mu demee Sénégal ñëw ngeen ànd dem wut appartement mu lay tëddee kooku sama taalibe la Amina pote bul fàtte bi nga may woo téléphone di wax naan ma oh kon yow yaay Assane Diouf yow la ma Pape Diouf doon wax ne naa la woo Amina Poté xam nga Assane Diouf fàttalikul comme nag dangay wax nax danga ngaa war a yar sa doom xam nga li nga war a njëkk a yar sa doom lan la Amina Poté bi ngay juddu da ngaa ñuul kukk dangaa ñuul kukk yàlla moo la indi ci kaw suuf nga gën a ñuul Assane Diouf Amina Poté xeesal du la doon jigéen ji nga war a doon Amina Poté nit day am personnalité ci bu ko wutalee boppam ba nga njëkkee génn ci Youssou Ndour dem Touba di jéem a tasaare kër sëñ Fallou ba tax sëriñ Abdou Fatah Mbacke mu sëriñ Fallou war a génn koo xamante ni ba mu juddoo ci ndeyam ak baayam ba léegi mësta tooñ kenn wala bu mësee tooñ kenn tamit Sénégal mësuñoo dégg ñu ne sëñ Abdou Fatah ma ngay dem kër diw wala mi ngi jéggulu waa Sénégal nga génn di ubbi sa làmmiñ naan waaw Youssou Ndour li mu def da koo war a def ñiy wax xam nga dañoo xamul wara a duñ ay murit boobu Serigne Assane Mbacke mii Macky sàll di néewal doole tey moom moo njëkk a génn di naqarlu Youssou Ndour ñëw ci màggal maamam parce que Youssou Ndour warul toog Youssou Ndour laa warul toog fenn ci suufu Touba ma di ko wax murit yi tey ñu xam ko Baye Fall man Baye Fall laa Baye Fall laa maa ngi juddoo rue 25 angle 18 Youssou Ndour mi ngi jur ay doom ay laa wax waxuma benn waxuma ñaar waxuma ñett waxuma ñeent barke Muhammad barkeb yonent yàlla Muhammad ay doom biir ndakaaru yoo xamanta ni ba tey jii nanguwul a taxaw ne mooy seen baay xale yooyu di dox man ma xam leen Médina laa juddoo école Médine laa jànge yërmande yërmande sa waay étage bu gudd ak rajo ak télé bu dul wax dëgg musique buy jooyal poosu benn doomu aadama kese ak njabootam musique buy bundu xatal misik yi nekk Sénégal yépp ba képp koo xamante ni meloo ne Pape Diouf di mar seen taat guddeeg bëccëg sa musique du dem fenn parce que moo ko waxal boppam moo ko waxal boppam grand su ma demul topp ci ginnaaw waa nduuréen Bougane geey Dany teleem dafa bari doole te bu ma toppul ci ginnaawam wala ma topp ci ginnaaw waa nduuréen Waly Seck goroom la te dañ may néewal doole parce que balaa muy dimbali kenn dimbali goroom moo tax il faut ma wéeru ci waa Ndourène Papa Diouf yàllaa la tiim yàllaa ma tiim xam nga li ma waxoon presse senegal bi ñu ngi dégg li may wax yaa ngi dégg li may wax bu fekkee ne ay fen la maam Cheikh Anta nga wax ne moom nga gëm maam Cheikh Anta bu sëñ roq ya man sëñ Modou Rokhaya moo ma njëkk a woowe Assane Dia révolutionnaire ay doomeraam yoo xamanteni xamuñu seen bop yu melne ne amina poté ab tiaga nga xamné ne bi mu amérique fi rek laataa muy dem lu bon bon bon tedd na fi ñetti goor yo xamanteni ñetti goor ñepp xamanté barki sëñ man ma leen ko wax man Assane Diouf parce que ñun ay goor lañu dañuy wax ci suñu biir dañuy waxtaan ci suñu biir kenn ki jóge New York dem Sénégal ngeen bokk même appartement te du sa jëkkër Amina Poté muy bàyyi kër ndeyam ak kër baayam di la fanaanoo guddeeg bëccëg te du sa jëkkër Amina Poté bu ëllëgee bu ëllëgee bu ëllëgee dugg Amérique accidenté fi du loo tax a nekk millionaire wala milliardaire parce que Amérique dafa am droit ak loi laaj ko sa baay Youssou parce que mi ngi fii di def tournée te fu mu dem xoolal ay nitam di gën a wàññeeku doolem di gën a wàññeeku ndax Assane Diouf kon Amina te jël sa làmmiñ balaa may génne ay photo nag parce que xam nga li may wax xam nga ko bu baax wax nañu téléphone maag yow barke Serigne Bamba te yow yaa yëkkati sa téléphone woo ma xam nga kër ga nga woowe woon xam nga góor ga nga doon fanaanoo te jël sa làmmiñ Amina ñun duñu xawi sutura comme ni salbe ndom waxe duñu dugg ci ay mbiri jàmbur mais buñu duggé ci ay mbiri jàmbur dañ cay wax lañu xam duñ ci sos duñu sos comme ndom man duma sos de barké serigne bamba duma sos du dañuy défar sénégal ah amina du da nga bëgg say dom baax amina poté danga bëgg say doom yeru amina poté danga bëgg sénégal jat bu guddi jotete booy dem ci soire yi solol yëre yu jot amina poté bu ko defee say doom xam ne xolal diine dafa am sénégal amina poté poté an sa sant ndeyeg sa sant baay ba nga ciy teg poté doomeram

waaye sa baay Youssou Ndour mi lay daggal salaire foofu ci biir TFM wala Boubacar Diallo Boubacar Diallo Boubacar Diallo sa patron laaj ko kan mooy Assane Diouf wala bu ëllëgee balaa ngay toog di wax ci Assane Diouf toogal ak moom nga ne ko Boubacar ndax war naa wax ci Assane wala déet te laaj ko ndax mës na maa defal dara da nga laaj ko ndax Assane Diouf mës na laa defal dara yar dafa baax ci nit